nga dagg leen dix mille. quarante quelques wala lu jege dix mille ñu desee ñu desee quarante quelques mille. Mhm. Euh, li maam Birame waj doon wax néeg bu baax ci ndakaaru mënoo ko am ci quarante mille boo ci bëggee boole ya cee ànd na moom beneen problème la. mais mais cinquante mille francs est-ce que si jamono jii nii ñiy wax waxu lépp cher soble cher na pomme waxuñu ko ak yeneen ak yeneen nga ni da nga leen di labal cinquante mille francs quand même non mais non mais gis nga Pamatar yi te yow ngay président Macky doon def bu yàggul ah voilà mais yooyu ci ASP yi la ko doon mais bien sûr bien sûr parce que ma maa ngi a yam dañuy taaba taaba rek mhm. c'est une honte dans un pays ñuy wax masse salariale cinquante ah, une honte tey jii mii na daan doole yi nekk ci kër gi sax wallahi azim yokk nañu seeni payoor kenn dootu ci nangoon cinquante nangootuñ ko kon tey jii koo xamante ne day xëy suba ba ngoon taxaw combien d'heures de travail mun nañ ko assimiler à de l'esclavage mm-hmm. nga leen di fay fukki junni ba pare après nga war a taxaw di bàkkoo ne jox nga leen cinquante mille gis nga man li may wax chaque jour inspection du travail ndax ñi ngi def seen liggéey banqaas boobu ndax amati na njëriñ quoi mm-hmm. parce que y a beaucoup de maisons yoo xamante ne franchement ils vont aider les travailleurs te xam nga lan moo ci métti tey tu es obligé de courber l'échine quoi d'accepter tout ce qu'on te donne parce que quoi le marché de l'emploi vraiment mooy loolu pour nga am liggéey problème la soo geddee cinquante mille francs yooyu dem toog pour nga dundal sa njaboot day métti loolu day indi ngay nangu lu nekk lu ñu la tegoo rek nga teg ko tegoo ko mais nag jot na billaahi mar naan ku mu taxa naan petit su robinet ubbee nga rus lenn li danga koy xeex soo koy xeex dina métti trop ci début bi mais ci njëlbeen bi finalité bi moo ci am solo mhm. pamata foofu lañ toll ci réew mi réew moo xam ne ñu ngi toog naan un responsable apériste denc këram huit cent et quelques millions bañ ko fay sàcc Farba dans quel pays sommes-nous Farba Ngom c'est très grave dans quel fekk ne le citoyen sénégalais honnête mi ngi trinqué. pour dund non non non Awa Diop taxawal ci loolu yow ci loolu nga ni nga ni dafa am benn responsable politique bu tudd Farba Ngom bu bu ñu sàcc ci këram huit cent millions. huit cent et quelques millions. presque mi ngi ci journaux tey presque un milliard quand même. mais loolu lu mu mënee ne. et c'est pas la première fois soo xoolee kër ma Madické Niang ay doomam defoon nañ ko ko kër Pape Diop defoon nañ ko ko. léegi ñun suñu ay autorité daal ñoom ñu mën nañ jël seen kër transformé ko ay banque ñenn ñi ay guichet automatique moo nekk seen kër ñenn ñi ay pompe essence nekk si seen biir kër di leen ravitailler te démb ak bërki démb Pa Matar yaa ak ñoom ma yemoon. bu ma leen tanewul soo leen tanewul. Mhm. am na si ñoo xam ne dañ daan ñëw plateau télé wal fajri wala ñëw rajo suñu paree yow journaliste bi yaa leen doon may paas ñu dem tey ñoo lay narge di yore seen ay 4 x di la romb. xanaa dañuy luxus. waay yow. Moustapha 800 millions presque 1 milliard la de. non man liir naa ko ci journaux yi tey su ma ko gisul woon ci un journal que je considère comme sérieux mhm. dama naan mënta nekk. ay caaxaan la. Euh, voilà mais à partir du moment où euh, gisaguma lu ko weddi <laughs> damay jàpp rek li sama confrère bi di dëgg la. jusqu'à ce mhm. qu'on prouve le contraire. absolument daf may euh, pousser ci benn réflexion moo di ne d'abord dama toog bu jàgg ma ne Farba Ngom en fait ban fonction lay assumer. nen d jaay terrain. ma griot président ma ne griot président kenn ci jàpp kenn. après ma ne député à ah, l'assemblée ma ñëw rek député assemblée nationale après mais le plus important moo di Pape Mokhtar uh-huh. Farba Ngom il est maire mm-hmm. il est maire mm-hmm. ça veut dire quoi que ni dafa war a déclarer patrimoine benn mm-hmm. ñaareel bi mooy lof nag mm. lof nag mais mënoo dégg quand même ñu ne la un maire du Sénégal ah, ah. un maire ci Sénégal gi sàcc nañ ci këram huit cent et quelques millions de francs CFA ñu toog comme si de rien n'était war nañ ko gëstu pour xool ba xam cet argent la nan la def ba retrouver foofu mm-hmm. déjà jeune ne pense pas que ça soit que ça soit permis que autant d'argent ñu denc ko ci kër mais mm-hmm. bu fekkee ne moo ko moom mu lew ko je ne pense pas que ça soit permis mm-hmm. encore que encore que euh, depuis que euh, euh, ma xam Farba Ngom ba léegi miinu ma ko mosuma ko gis mais en tout cas depuis may dégg turam ba léegi gisaluma ko liggéey bu war a permettre loolu à ñu ne ma day jaay terrain mais jaay terrain mooy lan fii ci Sénégal. ak yan terrain lay jaay sax. fii ci Sénégal amu fi benn suuf boo xam ne. da ngay ñëw rek euh, jël di jaay. suuf yi fi nekk soit. ay suuf yu maamu jàmbur la ñuy doonante suuf wala suuf yoo xam ne état ci état bi état bi ñoo ko moom mhm. état bi mën na koo jox ay nit euh, pour ñu dëkk mën na koo jox euh, euh, journalistes yi ñu dëkk mën na koo jox magistrats yi ñu dëkk mën na koo jox menuisiers yi mën na ko jox ñeneen ñeneen wala boog état bi mën na ko def mu nekk utilité publique mhm. maanaam fu ñu tabax école fu ñuy tabax université fu ñuy tabax dispensaire ak yu demee noonu mhm. mais damay jaay suuf te loolu Pape dafa bari ci réew mi de dëgg la réew mi ñi fi yore milliards di ko di ko di ko kobos kobosee ñëpp koo ci laaj ñu ne la ci suuf la. te mënu koo justifier. fu mu koy justifier ay suuf yoo xam ne eh, fii ci aéroport bi bi ñuy tabax monument de la renaissance loo ci déggoon ci suuf ya. Mhm. loo ci mhm. déggoon. dëgg la que ni suuf yooyu lañ jël jox ko benn waaye mu terrassé ko après lam ci génne ñu financé ci monument bi et cetera et tey jii ay suuf ngi fii ci aéroport Ndakaaru bii ñu ñuy jaay terrain cinquante million terrain cent millions ñan ñoo koy jënd. après ñu koy defee est-ce que du Awa Diop du ko jënd ci soixante quinze millions ñëw jaay ko Moustapha ji cent millions mhm. et cetera voilà c'est des questions yoo xam ne je pense que il ne faudrait pas ñu arrêté wu rek sur la gravité de, du fait mooy huit cent et quelques millions ci génn kër ba sàcc di ko sàcc mais également mais c'est première oui et c'est pas une première ah, millions yu mais am na am na douanier bu ñu sàcc xaw ma ñaata ñaata millions ci biir këram mhm. fii ab douanier mhm. donc su amee Eh, man daal Sénégal li ma li ma waaj wax suba dina dina yéex faju de parce que leen day am ñu war ci profité régler lu baree baree baree bari on le fait pas maam Birame mi ngi koy fàttali vendredi mhm. li xew Tivaouane ba fa président Macky Sall demee lan la wax mooy demandé na à ce que ñu def ay enquête le plus rapide ay mhm. audit le plus rapidement possible pour wax ko ce qui se passe dans les hôpitaux ñu trouver ay solution mhm. maam Birame waj nee nag boo retourné mille vingt et un euh, la même période conseil des ministres après l'affaire Linguère uh-huh. la même chose le président Macky Sall waxoon amul solution uh-huh. donc uh-huh. gis nga bi mooy deuxième fois déggoon nañu fi aussi kër Farba Ngom moom ñu sàccoon fa deux mais moom lan la dafa yore machine xaalis wala BCEAO lay liggéey mais mais loolu moom mooy laaj bi euh, Pa Matar kañ nga découvrir Farba Ngom yow kañ nga xam Farba Ngom ba mu faloo man ci laa xam Farba Ngom ci laa commencé dégg Farba Ngom loo nekk nekk nekk nekk xanaa waroo am benn liquidité boo xamante ne huit cent et quelques presque un milliard nga ne yaa ngi ko denc sa kër kon lan. moom kay boo boolee luñ ko sàcc sàcc nañ ko un ne euh, euh, tey waa Fouta Tampi yi ca ba muy. Fouta Tampi toogoon nañu ne ah, faar ba dafa tabax biir këram forage. te dëkk ba amul forage mu tabax ñaari forage biir këram li nga li nga wax rëcc na ma bi muy nekk Fouta Tampi ñoom ñoo fi génnoon ne Farba Ngom dafa tabax forage biir këram forage ci kër. biir këram añam. mais j'ai dëkk ba amul forage. j'ai vu une vidéo sur net je ne que ça parce que les vidéos sur net moom mën nañu leen a wax loolu ne. Mhm. mooy bu Baye Niass voilà mais benn waay di filmer ne. fii mooy baa ngi nii et cetera et cetera mooy Baye Niass moom mooy véritable léegi Fouta Tampi bi léegi moom moo def vidéo bi mais forage boobu man je me rappelle ba may def sortie ak euh, ba Fouta Tampi di Fouta Tampi waxoon na ne Farba Ngom dafa tabax ñaari forage biir këram te dëkk ba amul forage dëkk ba si waa këram la ñuy rootse forage ñaata moo koy defar ci xaalis nga xëcc courant tëb dëkk yëpp yow ñëw def sa kër tabax fa benn bâtisse boo xamante ne benn luxe bu insolent ci village boo xamante ne ay case moo la war wala ay néeg yoo xamante ne c'est des maisons de fortune mhm. yenn yi soo ko mënee sax waroo koo mën a def daal ndax c'est narget ta population c'est narguer ton te nee nga yow yaay maire bi te te leen moom am na man foofu laa toll damay laajte rek Moustapha ndax CREI yi mi ngi fonctionné ba léegi ndax looloo ko taxoon jug CREI yi exactement. ndax procureur amul droit autosaisir wu ci ndax le président Macky Sall tey warul jug woo Farba Ngom ne ko kaay restituer parce que war na xam ndax liggéey moo ko ko may wala may ko ko. Hmm. waaye comme que moom moo fi toog nag déclaré patrimoine huit milliards ci laps de temps bu mu nekkoon su wàdd kon keneen ku def loolu ci euh, magistère am. ak ci wetam bu bu bu bu déclaré huit cent millions. dama dama jàpp ne euh, Pape dama jàpp ne waxtaanu. milliard. waxtaanu million. centaine de millions ñaata milliards loolu la ñu war a bàyyee waxtaanee ci pénc mi. Pamatar mënuñu nekk ci réew moo xam ne ñi ëpp bu ñu añee ñu reer. wallaay dëgg bu nekk ñu naan milliard ba jaar na fee sàcc nañ lii fële oto jënd nañ oto nangam million jënd nañ avion cest à que euh, waxtaanu milliard moomu ñu teg ci pénc bi la ñu war a teggi. Mhm. Mhm. parce que bu dul dara ñu xalaat doomu aadama yi. Mhm. yi nga xam ne yow. Euh, foo fu Awa Diop njaay waxee ba tudd dix mille. Hmm. ña nga naan seen xel ay bu ma teewoon ci dix boobu. yow nga toog naan sàcc nañ ma huit cent million waxoon na dindi benn zéro rek jox ma ko quatre vingt millions rek doy na ma. waaw man de su ma ko joxoon naa ci rek la lu bëree bëree bëri quatre vingt millions yooyu <laughs> mais mais bon. Ah. c'est-à-dire que man xaw la mais dama am dama am pudeur ak xaalis. xaw ma nu mu demee noonu cest à euh, waxtaanu xaalis ça me ça me gêne parce que da ngay xalaat. ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi tëdd ci lalu hôpital. Mm-hmm. ordonnance su dix mille francs te leen. billaay dëgg la Moustapha wanewu la tàmm wanewu am na ñoo xam ne hôpital ba ñu ba ba ñu tëdd. bés bu ne ñu war a fay nangam ci français CFA soo ko dajalee ci lañ fay tëdd mën naa tabax kër wala mu def leneen. Mm-hmm. mais ñooñu ñooñu soxla nañu ndimbal. Mhm. milliards yi ñuy tudd ci penc mi nañ ci taxawu ñooñu mhm. Mhm. mais pour wane ne fi ñu ah. toll ci réew mi pamatar ñuy jeexal xam nga tey da ngay gis ci télé yi ñuy def ay téléthon di ketal ay nit yu feebar ay xale yu feebar tey rek damay seetaan benn xale boo xam ne opération du cœur lañ ko war a defal huit millions Mohamed Diop am na am na ku tudd Mohamed Diop euh, tey ji euh, loolu huit cent et quelques millions yooyu suñ ko dindi woon ñaata nit lañ ci war a faj ñaat bi euh, baax daan am war ma daan am tey nit daan na rus di fësal kanamam di yelwaan wala di ñaan mais tey dootul kersa nga taxaw di wanewu di ñaan naan dimbali leen ma ma fa jàngoro sàngam wala ma def sàngam man dama jàpp ne dama jàpp ne gàcce la war a doon ci ñun sénégalais yépp rawatina ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee borom barke mooy maanaam borom poos yu diis yi. Mhm. ñi nga xam ne am nañ ko mën nañ ko gàcce la war a doon léegi Sénégal ku fi am problème mu ordonnance wala euh, kër gu lakk euh, gis naa ci village bu lakk bërki démb. Mhm. wala soxla boo xam ne dafa jàpp mënta taxaw nan ngay def da ngay contacter waa mafia mafia la. mafia kàcc kàcc ñu lancer la nu mu tudd. Euh, Koppar Koppar Express mhm. mais loolu gàcce la war a doon. mais bien sûr. parce que ñooñu di ko di ko dajale noonu. amuñu dara lu ñu yor lu ñu mën a yore seen bopp bay dajaleel keneen mhm. ñoom ñi def effort fàtte seen bopp dajaleel ñeneen nit di leen jox mhm. ñi nga xam ne ñu rënk xaalis seen kër yii mhm. war nañ ci war nañoo xalaat doomu aadama jërëjëf Babacar Caana nee na Pape Makhtar Seye huit cent quatre-vingt-dix million kon wàññi nañ ci quatre-vingt-dix yoo xamante ni mën na faj ay soxla jënd ay ordonnance euh, sauver ay vie dina jaajëfal aw Diop Ndiaye est-ce sàcc boobu daganul ah waaw waaw loolu question la suba incha allah ñu jëm ci tontu information le euh, waa yeewi askan bi déposé nañ seen euh, lu mu tudd lettre d'information pour euh, seen manifestation bi nga xamante ne le 3 le 3 juin la incha allah mhm. dinañ si waxtaan bu subaa nga dégg waa bennoo déposé ñoom su ko defee préfet ne du ci ni voilà ni <laughs> jërëjëf Moussa Diop jërëjëf ñu ngi doon suivre ci page YouTube tolloon ci 4